mais tes frères laay wax ku ci mel ni Pama ak tey ku ci mel ni Sabel dañuy gis aw Pama ndax mën nañ xaar benn duo tube am ci li nga xamante ni moo la famille Diagne merci beaucoup. waaw sama jigéen bi yow moom posé nga question yu am solo yow moom indiwaat na ma ci événement bi te man loolu lay bëgg damay bëgg ku ma andi ci le 28 décembre. jërëjëf Cheikh Mbacke dañ ma indiwaat ci événement bi li nga wax sànq lu am solo la événement bi biñ koy jël loolu yëpp dañ ko bàyyi xel je pense que biñ koy dem di signé man ak suma maman Ngoné loolu yëpp dañu toog waxtaane ko yan dispositif lañuy jël ba dem bi ak dikk bi mën a yomb lool donc ci kaw loolu dama leen wax ne bu ñu sax xalaat bu ñu tëddee dañ nelaw ndax euh, ki nga xamante ne mooy directeur bu bees bi muy monsieur Dame Mbodj foofu la njëkk loolu la njëkk souligné mooy li ñuy gën yombal mooy dem bi ak dikk bi ba tax na ñoom FONGIP dinañ am partenariat ak terre bi je pense ak Dakar Dem Dikk su ko defee mu yombal fépp fan si jógee moo xam damay jël exemple maanaam ku war a jógee parcelle wala ku war a jógee Guédiawaye Pikine banlieue war a bëgg seetaan si Momo Dieng 28 décembre Dakar Arena fi nga nekk noonu dañuy ñëw fépp fu ci nekk Dakar Dem Dikk des bus dinañ nekk ci seen disposition ba nga xamante ne dinañ la mën a jële foofu andi la ci terre bi terre bi bu la yóbboo nga dem ba Dakar Arena di nga fa fekk tamit bus Dakar dem dikk bu la yóbbu dugal la fa nga xamante ne fa la saal ba nekk donc xam nga loolu yëpp pour yombal dañ bay dikk bi loolu féete na boor beneen question bi may ñëwaat dafa mel ni xaw naa lay sax hommage à Aziz Dabala. hommage à Aziz Dabala a nekk la ndax Aziz def na ko Sénégal macha allah mu nekk koo xamante ne ndaanam la fecckat bu mag la koo xam ne def na liggéey na mu waree ba Sénégal yi ko naw ko yàlla ko yàlla yërëm jéggal ko ak mboolem jullit incha allahu rabbi loolu nag surprise lay doon mais lu mën a nekk na parce que tamit def na ko ci vidéo bi ba leen seetaanee sax na ma noppi donc daf ci def liggéey bu am solo te loolu incha rabbi dinaa ci bàyyi xel bu baax a baax a baax baax baax baax ma ñëw ci Dio Pama Sadel Momo ak Alpha Boreva loolu géej am na ndox loolu géej am na ndox ma géej am na ndox loolu tàmm nañ di ko def du suñu premier événement lañ àndandoo ñun ñëpp def di yow donc def nañ ko grand théâtre si seize donc Dakar Arena dañuy sàppal ay ci yow ku sañoon da ngay def ak sa way jur te kooku suma papa donc te loolu mën naa ne réer bi ma nekkee xale ba tey ku gis Momo Dieng ak ni muy doxee ak ni muy doxalee da xam ne am na ay référence ci musique sénégalaise rawatina nag ki nga tudd léegi jëmm ji nga tudd léegi alors loolu rêve la suma papa yi sudu tamit ñëw Dakar Arena loolu beneen affaire lay doon te dama ne xaar leen lu événement eh, bi di yéen xaar leen lu nekk lu nekk ngi ci biir lu ne mën na nekk donc du ma sori ci question boobu parce que yéen da ngeen a bëgg samay surprise ak yi ma war a def ma wax ko te loolu bu ko waxee du saxe donc xaar leen ci événement bi incha sama génération mooy tàkk ak fay li ma wax nga loolu. dafa tax artistes yu bari dañu ragal xaaral ma ñëw ci li ma moo tax tey artistes dañuy bëgg bu ñuy dugg ci néeg bi sax ñu jël leen vidéo leen dugal leen ci plateforme yi pour juste rek ñuy exister di fi nekk <laughs> xoolal artistes yi tey seen vie dañuy gën a wane ak li ñuy sama ma doon wax benn baat mu ne ma moomoo ma ne ko naan mu ne ma bu di wute xew yow wute la mën mu ne ma bu di wuti xew naan dañuy xew xam nga lu xew xewi yow wuta la mu ne saa su ne xew day dem bàyyi fi mën te loolu am naa ci ay référence ana suma bàpp yu sudóor est-ce que fi nekkee ba tey dugub bi ñun ñëpp kenn juddoo ko te ba tey jii mi ngi fi kon exemple boobu ma joxoon noonu dafa nekk sama xel loolu tax ma dem jàngi musique loolu tax heure bu ma ñëwee mu neex alors où est le problème de xew ak mën ak fay yéen da yaa nga wax ne yéen ñii la koy def <laughs> yéen ñii la yow xam nga ne moom mooy def kenn dootu ko exister ci artistes yi je joue tous les semaines du ma tëbal tëbalu ma tukki wu ma tous les mercredis maa ngi baaramuti les mercredis di doon ay guichet fermé ñëw leen jël ko yéen te siiwalu leen ko COP21 di mel ni muy mel hmm? est-ce que jël ngeen ko donc loolu yéen yéen ko wax yéen ay seet ngeen di jàppale ñi ngeen di couvrir ñi ngeen di jël ak ñi ngeen di siiwal c'est ça le problème